xëy na saa ñu ko ci yenn parti est-ce que yéen école du parti c'est juste de nom wala effectivement li nga xam ne moom lañ war a jàng ci parti bi ñeneen ciy bàyyiwaat. bu baax a baax a baax euh, man mii di wax ak yow daanaka noflaay amatuma ko euh, fii ba fin mars chaque week am naa programme boo xam ne moo mi ngi lii ak formation yi ñu war a defal militants yi ak responsable yi danaa dem ba Gambie incha allah j'ai été invité par les patriotes de la Gambie. c'est en mi mars bu soobee yàlla euh, école du parti li tax Pastef taxaw ci jox ko gëdd bi mu ko jox mooy ba ñuy yegg si dañu ne opposition argumentée et documentée boo bëggee euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci sa biir parti comprendre il faut nga former leen pour ñu comprendre enjeu yi nga xam ne moo nekk ci discours Pastef projet wu Pastef loolu daf ñuy permettre aussi ñu ñu. Euh, maanaam ñu abrégé temps bi nga xam ni moom la ñu war a def non seulement pour yegg ci nguur gi waaye aussi mu mën ñu permettre bis bu ñu yeggee ci nguur gi application projet boobu nekk lu lu yomb ci militants yi ak yi nga xam ne ñoom ñooy finalement remplacer ñi fi nekkoon war a doxal projet bii euh, Pastef bind loolu moo tax école du partie di Daaray Cheikh Anta di jouer sa rôle centrale là ci biir parti. Euh, rôle boobu tamit euh, Moustapha Sarré est-ce que yéen a ngi bàyyi xel tamit ci li nga xam ne mooy yenn saa ñu nemee ko ci les réseaux sociaux. Mhm. xëy na fugg la wala passion la bi nga xam ni ñi nga xam ne dañoo féetewoo ci ci président Ousmane Sonko dañ koy am. Mhm. ba ñenn ñi jàpp ni sax dañuy indi li nga xam mooy dictature de la pensée unique maanaam boo àndul ak ñoom. Mhm. Euh, li nga xam ne ñoom loolu la gëm. xëy nañu ñu dal sa kaw verbalement wala ñu waxee noo xam wala ñu ko noxee jàpp nga ne ñooñ déjà ci yéen la ñu féete. su fekkee c'est le cas également est-ce que yéen a ngi bàyyi xel euh, ci wàllu formation bi euh, euh, anam boobu maanaam pàcc boobu noonu. mënuma mënuma dàq totalement que ni y des gens yoo xam ne peut-être am nañu caractère boobu mënuma ko dàq waaye ñi ci ëpp comme ni ma ko waxee léegi ay faux compte la ñi ci ëpp c'est des comptes yoo xam ne dañuy mbubboo Pastef di wax na ko sudul noonu waaye li wóor ba wóor mooy. un véritable militant de Pastef c'est forcément quelqu'un de passionné parce que bis bu euh, nit ki discours Pastef bi bu xësee ba ni toq ci sa nopp pour mu génn ci c'est difficile parce que c'est un discours tellement véridique tellement cohérent tellement structuré que finalement keneen bu xëy na keneen bu amee beneen gis-gis mën nga jàpp ne. Euh, gis-gis la boo xam ne waru ko am. xëy na mën nay pousser ñenn ñi ñuy ñuy def yenn excès yi yenn ñenn ñi laa wax ah, mais ñi ëpp ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy ŋàññi ñii wax naka su dul noonu di saaga ci réseaux sociaux yooyu musuma cee gis koo xam ne man personnellement man mii di wax ak yow. koo xam ne il membre de PASTEF. Mm-hmm. te mën naa leen yéen ñii sax xam yéen xëy na xamu leen militants yi mais responsable PASTEF yi xam ngeen leen est-ce que mës ngeen a gis benn responsable PASTEF mu wax naka su dul te pourtant ñii ñu jàkkaarloo tout le temps ngeen dégg seen responsable yi di wax naka su dul noonu di saagaaka menacé menace de mort sax dañ koy def donc pour vous dire simplement que Pastef euh, parti wu nit ñu euh, yaru lañu nit ñu euh, dal lañu waaye aussi nit ñu passionné lañu nit ñu bëgg seen réew lañu. loolu daal laataa may jox Pa Ousmane rek très vite suite logique bi ñu nekk rek parce que mhm. dégg nañ tey sorti ki nga xam mooy Cheikh Yérim Seck mi wax ni ko euh, na moom ak njabootam tax ba état indi dispositif boobu muy wax xamal ni que pensée unique maanaam dictature boobu dafa am ci réew mi ñu bëri njot ni muy wax nag mi ko jëmale ci Ousmane Sonko ak ñoñam juste pour rejoindre fii ñu nekkoon bi di nekk rek euh, nga nekk li mu wax euh, yéen da ngeen cee gis seen bopp est-ce que est-ce que effectivement danger mu nekk ko wax mu jóge ci yéen jëm ci moom. par respect par vous et pour les téléspectateurs dama ne woon du ma tontu du ma wax ci waxu Cheikh Yérim Seck. franchement. Mm-hmm. dama ne woon du ma wax ci waxi Cheikh Yérim Seck parce que euh, c'est un personnage insignifiant pour moi mais dinaa pour tontu ci li nga wax nii rek dama la bëgg a xamal ne la. Euh, lii mu wax noonu day firndeel ne son livre là était surtout destiné à ternir l'image de Ousmane Sonko su demee bay taxaw ne moom alors dict nanga dictature euh, pensée unique la fi gaa yi bëgg indi et cetera mais cela veut dire que titre bi mu def noonu c'est un faux titre Macky Sall dans l'histoire xaw ma et cetera euh, j'ai même oublié le titre du livre c'est un livre qu'il faut vite rapidement oublier d'ailleurs mais kooku li mu livre bi yépp li ko ci soxaloon mooy le chapitre 16 xaw ma chapitre 16 la je je crois je m'en souviens même plus mooy bi muy wax ci affaire Ousmane bi muy attaqué Ousmane Sonko foofu mais durant tout le livre il a donné le beau rôle à Macky Sall bu ngeen ko seetloo ba seetlu ko même détournement yi muy wax ak surfacturation yi ñeneen ñi lay wax ñu ñoo ko def. il a parlé du directeur du de la Sénélec et cetera en tout cas mi ngi doon couvrir le plus possible Macky Sall yi muy waxee Macky bon il faut il fallait qu'il attaque Macky dans parce que pour être un peu euh, crédible il faut que mu xaw a attaque Macky Sall et tout mais son principal objectif moo doon ternir l'image de Ousmane ko et c'était une c'était c'est une mission commandée nous nous nous, nous avons compris maintenant nag ñun dañ ko faalewul sax yàlla xam ne ni waa Pastef bu ma la bu ma la mën mënee wax dëgg on ne discute même pas de ce livre-là on ne parle même plus pas de moi je suis dans plusieurs groupes WhatsApp dans lesquels on on échange WhatsApp te ak yeneen yeneen yeneen euh, application mobile yi on ne parle même pas de de de de ce gars-là parce que nous nous nous trouvons que ce livre-là est un torchon mais bien mais non attends c'est un non-événement mm-hmm. waa ji c'est quand quelqu'un passe son temps à, à, à créer un tissu de mensonges, quand quelqu'un passe son temps à, use de chantage pour survivre, quand quelqu'un, euh, disons, passe son temps à ternir l'image même du journaliste, d'ailleurs il, il, paraît n'a même pas fait de formation, d'après les modèles, ah bon, sa formation journaliste, mais man, une telle personne, je me demande comment le monde est ça. Vous êtes dans ce pays-là, ben, il y a Quelqu'un qui n'a jamais rien dit de profond, mais qu'est-ce qu'il a déjà dit de profond ce mec absolument man mosuma ko dégg mu wax loo xam ni lu xóot la ay anecdote daal lay raconter d'ailleurs son livre c'est un ramassis de de faits divers hein ce n'est rien d'autre que ça c'est un torchon qu'il faut vite oublier man le livre de Cheikh Yérim j'ai vraiment perdu mon en le lisant mais heureusement que je j'ai même oublié le titre fàtte naa ko teg sànni naa ko fële voilà d' accord <laughs> Pa Ousmane euh, Cheikh bi rek lañuy la ñuy des ba tey euh, sortie bi mu def tey euh, ban jàngat nga ci am de manière générale ci li nga xam ne jot na ko wax par rapport ak livre bi. juste tontu ak peut-être leeral livre bi lu mu créé retour yi ñu ci am na ci ay pàcc yu bëri ci yenn retour yi mais ma ci yi ma ci jàpp mooy tontu yi nga xam te ne bàyyeekoo ci ñenn ñi bon ñeneen ñi mu qualifié ni dañu saaga ñooñu. du perte temps peut pour tontu leen xëy na ñu mu jaajëfal donte ñooñu bi ñuy critiquer livre am ànduñoo ñoom ci gis-gisam nanguñ na leen ko jàpp ni loolu Sénégal mooy ni mën ngaa am sa gis-gis nga bécc ko ci penc bi ñii ne waaw ñii ni déet te noonu la réew mi war doxee mu jaajëfal leen mais peut-être man euh, li may relever en terme d'incohérence ci ay waxu Cheikh Yérim tey surtout mooy juste bi mu defee. speech en d'incohérence. waaw daf ci am ay incohérence yoo xamante ne man euh, bi muy échange avec les journalistes laa ko am na ci journaliste bu ko posé question mu xaw a d'ailleurs sax emballé wu euh, ci la commencé di wax donc bi muy wax di expliquer ni amul benn jafe-jafe ak Ousmane Sonko wax ci wax ci wax ci mu am benn séquence bu ma retenir quand euh, bu ma ko bëgg a delloo.